mbokk yi ba léegi ñoo ngi kër ci kër Papa Thione ñoo ngi taxaw ak soxna Yacine Gueye Ballago ku ne xam ko si diggante moom ak Papa Thione soxna Yacine Gueye ballaago noo dundee bisu tay gi ak naqar ak tiis. asalaamaaleykum ñu ngi lay nuyu di leen jaar di wax ni bis bi moom bis bu yéemale ki ñun ñi nga xamante ni ay doomu Papa Thione lañ. waaw ñëpp sama tur Yacine Gueye ñu gën ma xam ci Yacine Gueye Ballago muy suñu papa joo xamante ni ñàkk nañ ko te mënatuñ ko am mu nekkoon référence nekk ku dëgg ko amoon diine ku bëggoon tamit Seydina Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ku fonkoon tamit julli man ma xam ko ci moom doon toog fii ci kër gi ñuy waxtaan bu ñuy waxtaan ba 5 heures mooy la kaa di jog ni ma Adja Yacine ah jógal boog jàpp julli jot na man ko man papa Thione maa ngi jàpp ne aca bokk euh, ndax mën naa leen a jiite ndax mën naa leen a jiite boobu muy wax kon ci xam nite la ak euh, doomu aadama da nga koy wax ci côté bi nga xamante ni moom nga xam ni euh, doo ko forcer leen parce que papa coon man wax jóg leen ma gisal ma wax ni ndax mën naa leen jiite ñu kaf leen ne ko ah, papa Thiam bien wax dëgg yàlla mu jiite ñu ñu julli fu julli jotee bana lu doon def waxtaanam du ngeen wax 3 minutes te duggale ki Seydina Muhammad Rasulullah man loolu dama koy remarqué ci moom bu ñu toogee dafa ne jigéen na gën a góorlu boo toogee Papa Thione da ngay yaakaar ne benn euh, sëriñ nga toogal wala benn waaraate katam parce que bëgg diineem la ak bëgg Seydina Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ñu koy ñaanal yàlla xare ko àjjana firdawsi yàlla jéggal ko yàlla yërëm ko yàlla yeesal yërmandeem si kawam di ko ñaanal fa ñaan yam di ñaan ci barke Seydina Muhammad Rasulullah sallam di ñaan ci barke Sëriñ Tuubaa ndax tamit ku bëggoon Sëriñ Tuubaa Xaadim Rasul la man am naa ci lu ma leer naa ñi papa Thione boo duggee si këram nga xam ne nitu diine la nitu diina la di ñaanal mama jaaga ma xam te ni wax dëgg yàlla lépp lu ko papa Thione waxoon si ñun rek mu ngi taxawee taxawaay bu rafet si ñun jàpp ñu tamit comme ay doom bi mu jógee màkk lii ma sol moo ma ko jox ak col bi ci omra bi wax dëgg yàlla papa Thione ko yaasin moom si kër gi la bokk sama doom la kon maman tamit ñu ngi koy ñaanal yàlla yàggal ko fi loolu wéral ko di ñaanal Wally Ballago suñu doomu baay suñu lépp waaw dëgg yàlla yàlla dëgëral ko kàttanal ko waali Seck yàlla bu ko kenn mënal dara yàlla ngi dund téeméer at ak fukk ak juróom-ñett ñu ngi ñaanal Wally Ballago yàlla dëgëral ko ndax nag instant bi moom la ñuy xoolee Papa Thione di ñaanal ñoom Mouhamed ak ñëpp ba ci Ababacar Sadikh Mbaye mu ndaw mi nga xamante ni macha allah suñu raq yi ñoom ñëpp ñu respecté ñu nag jox ñu cër waaye lépp nag si mama jaaga la waaye lépp tamit ci Papa Thione la ndax lépp moom la woon. di wax daal Papa Thione fan nañ njort ci moom xamoon na diine xamoon na alxuraan te daana koy digle di ko wax fu mu toll waxam mooy Seydina Ahmad saa salaam waaw Papa Thione daal yàlla na ko yàlla xare àjjana fi daw si bis bi nag naqari na lool si ñun mënuñu ci wax liñ bëgg a wax lépp lépp ndax daal kenn. ndax gisati ku mel ne Papa Thione dina yomb ci ci ci mim wala ci famille bi. Papa Thione kenn la woon deetul am ci àdduna bi ci àdduna bi laa wax du ma wax famille bi. ci àdduna bi laay wax parce que nit la woon ku jafe ci nit ñi mooy dëggoom dëggoom dëggoom man bi ma koy bëgg booba onze laa am sama mag euh, toujours moom lay déglu may reporté wu di xàmmee mais ay waxam toujours rek luy delloo nit ñi si yàlla la surtout ma dëggu bi mu dëggu li ma gën a neex ci Papa Thione man naa ne man dëggu bi la dëggu ak bëgg Serigne tubaa moom ma gën a neex ci Papa Thione dëgg yàlla mënul amati amatu Papa Thione jeex na ci àdduna mënatul am billahi mënul am waaw mënul am dañuy ñaan rek euh, yàlla gën ñu may xolu muñ daal parce que métti na damay ba quatre heures du matin ma yeewu di jël papa coon loolu yàlla moo ko def xaw ma xaw ma sax daf may jaaxal dëgg dëgg waaw dëgg yàlla mënul amati ci àdduna bi mënul am mhm. waaw ko ñaanal yàlla rek ko ñaanal yàlla rek waaw jërëjëf